yaa ngi ci jàmm. cool alhamdulilah. Euh, dañ ma woo léegi am wax yu ma wax yu ma jaaxal en venant de toi. wala parce que parce que da nga demee si Babacar Gueye. Hmm. ne ko nga ma xam sama jikko neexu la baaxuma dañoo dem Thiès man ak yow bokk xaw ma hôtel ma nekk fa góor. ak di wax yu dul jeex yu bari jarul may dugg ci détails yi man xam nga ma kuma ma lu ma waay def dama lay woo war ma fekk la sa kër lijjanti ko ak mënti doon ci àddina dama ne lu ma waay wax wala lu ma def damay koy woo ñëw sa këram yow danga ñëw nga ne sama fan sa nga da maa bëgg yaax saf mm-hmm. nga ñëw ma ubbi la samay porte robe ma jox la yére ma jox la nga sol ñooy ànd baali def lépp non damay dégg déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ah, sama sama sama du yor nga whatsapp su ma paree loolu dinaa la ko yónnee xëy na da ma rek ba pare déglu ma ma jël sama frère may la ko ngay génn ak moom muy Abdou Aw ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow tey yow yaay xëy ne man danga may yàq parce que man damaa bon moo tax nga bàyyi ma. waaw ak après après après nga ne rek man dama bon man di wër di ma yàq si Babacar Gueye pour pour ndax parce que da nga bëgg mu takk la dimanche. Euh, mu takk maag mu ñàkk maa takk ak lu mu mënti am loolu man aw ma benn compte bu ma lay raw. non soxla ma nga raan ma kon mais dama la ne beneen yoon a tee. pour bula la naka laa la wax de xam nga jàmm laa njëkk laa mës a sëkk ma man soxla ma ku ma ragal mais man xam nga ma rek ay dara man daw ma saala yaay ndeer fekk la sa kër googu noonu nga toog ak ku mënti doon ci àddina def lu ma fay def la mais dama la ne beneen yoon a tee nekk la ku la neex déglu ma déglu ma nekk la ku la ci àddina mais dama la ne dama la ne nga gérer li ngay gérer nga gérer te nga génne sa làmmiñ man sama tur looloo tax ma woola ma wax ankay boo ko waxul woon du egg si man. Euh, yaa ngi amul ki la ko wax wala nangam ak sangam dama lay wax rek. yow barki demo moo barki demo moo njaay téléphone boobu. <clears throat> am na chance téléphone boobu ko may ba ma naroon ko wax Cheikh Kouyaté ko may. waaw doo man bu ma bëggee Babacar Dieye takk ma du ma du ma du ma ko du ma fi nekk di yàq deru kii que ce soit Babacar li ma waxante ak moom moom xam na ko daf ma laaj dama lay fréquenté ma ne ko maag Marie-Louise fréquenté nañu benn at de temps ma ne ko ñu bàyyi ñu bàyyante ku nekk jël sa yoonu bopp. ma ne ko maag Marie-Louise du ñu wax parce que dafa dem Thiès fanaan ak sama far Ablaye Dieye comme xam nga mais bu fi nekk di naan ay danga maa joxe yére ma sol man musuma sol sa yére musuma sa dërëm mosuma fanaan sa kër te mosoo ma présenté beneen góor Abdou Aw te Abdou Aw laaj ko est-ce que maag moom mës nañu génn wala mës nañu def dafa lu ñàkk fayda Racky waaw Racky yaa may dégg maa lay dégg nga ne damaa dem fanaan sa sa copain Ablaye Dieye Ablaye Dieye nga fanaan ndax moom moom ko waxee loolu mari loolu loolu ñëpp jot nañ ci ah d'accord léegi ba léegi léegi d'accord lool léegi léegi léegi déglu ma léegi nga ne ñëpp jot nañ ci d'accord loolu su ma paree Ablaye Dieye naa ko léegi yow dama lay laaj yow yow est-ce que ñëpp jot nañ ne que barki dem moo njaay nga yàq biir ñëpp jot nañ que téléphone boobu nga yor Cheikh Kouyaté moo la ko jox ak ñëpp d'accord nañ que Seydi la Seydi Seydina Laay moo lay jooyloo yow baa xam nga ne yow mariage bi du am baa xam nga loolu yoo xamoo ci kan ngay dugg de bu nekkee pour pour pour sos pour non da doon saaga da doon saaga